qul wallahu ahadun nag bëri nay tur lool bëri tur lu muy tegtale ci baax ak la ñuy tudd bëri tur goo gis baax ak la ñuy tudd rek loolu lay tegtale qul wallahu ahadun danañ ko tuddee suuratu tajrid danañ ko tuddee tafrid danañ ko tuddee tawxid danañ ko tuddee lixlaas danañ ko tuddee najaatu danañ ko tuddee anisbatu danañ ko tuddee wilaayatu danañ ko tuddee jamaalu danañ ko tuddee maarifatu danañ ko tuddee muqashqishatu danañ ko tuddee almuxtadiratu danañ ko tuddee assamadu danañ ko tuddee maaniatu danañ ko tuddee baraatu danañ ko tuddee nuuru danañ ko tuddee lamaan danañ ko tuddee almunfaratu almunafiratu danañ ko tuddee almasa asaasu danañ ko tuddee almuawidatu ñaar fukki tur yooyu yëpp wenn saar wi moo ko tudd loolu lu muy tegtale ci ne saar wi saaru barke la tajriid mooy firi rafleel saar wi képp koy jàng rek da ngay rafleel yàlla ci bokkaale te yow it da ngay rafle ci mbooleem bokkaale yi set ci kéefër tafriit mooy firi wéetal tawxiid ba tey mooy firi bennal lixlaas mooy firi sellal najaatu ji firi mucc képp kuy jàng saar wi saar wi daf lay musal ci kéefër daf lay musal ci naafeq daf lay musal ci safara danañ ko tuddee nisbatu ndax mooy saar wi nga xam ne ba yahud yi ñëwee ak nasaraan ak banu Quraysh ne yon yàlla yonent bi dañoo bëgg nga waxal ñu sa askanu borom lan la moo tax ñu di ko tuddee nisbatu saar wi mooy askanu yàlla képp ku jàng xul wala waxadun rek da nga xam yàlla xam gu mat sëkk soo xamee saar woowu ba nga xam ne looy lëntale ci moom dootu xam danañ ko tuddee wilaayatu képp kuy faral di jàng saar wi daf lay yóbbu ba nga àgg ci maqaama waliyu yàlla yi danañ ko tuddee jamaalu ndax li nga xam ne mboolem taari yàlla yi saar yi feeñal na ko feeñal na taari jëmmam feeñal taari melom feeñal itam taari turam danañ ko tuddee maarifatu képp ku xam saar yi saar xam-xam bu rafet rek dal xam yàlla xam ngoo xam ne dafay wér te du ànd ak benn lët danañ ko tuddee mu muqashqishatu ji firi ak dañ ci kéefër ak dañ ci nifaax danañ ko tuddee al muxtadiratu ndax saar la woo xam ne képp koy jàng rek malaaka yi dañuy dañuy ñëw teew di ko déglu di la ñaanal yàlla di julli ci yow feeg ba ngay paree danañ koy tuddee as samadu mi nga xam ne moo ñëw ci biir saar yi samadu mooy lan yàlla mi nga xam ne moom lañ jublu ci mboolem haajo yi te mu doy lu wëlis ñëpp danañ ko tuddee maaniatu ji firi terewu saar wi képp koy jàng daf lay tere doo dem safara mukk am na yilimaan joo xam ne comme ni ñu ko nettalee bu muy bëril jàng saawoowu yonent ne na ko bëril gi ngay jàng saawoowu dana dox sa diggante ak dem safara danay tudd maanaatu ji itam am na meneen maanaa mooy képp koy jàng saar wi dafa lay dox sa diggante ak ñàkk xam naa bon Sénégal gépp war nañ di ko jàng danañ ko tuddee baraatu ndax lan dafay tere mbugalam bàmmeel képp ku jàng baraatu rek ku jàng xul wallaahu ahadun dootoo dem kooku doo am gis mbugalam bàmmeel mukk de nekk na ci xisa ñu ne jëmmi bés benn saalihu dafa romb ci ay armeel ñuy kër kër yi di roño buubu mu ne lii lan la laaj ko benn nit koo xam ne xam na ko ci armeel yi ne waaw lu ngeen xewle nii maa ngi gis yéen a ngi di buubu mbar dangeen bëgg a toxu ci armeel yi wala lii lan la mu ne ko déedéet dafa am benn jaam yàlla boo xam ne ku yiw la jaaroon fi jàng qul huwallahu ahadun may ko waa armeel yi addiya xulu bat xulu ca lañ nekk ca suba ba léegi di roñ yoom mu tëye jeex ba jant baa ngi waaj a so mu ne ko gis nga man xul walla waxadun ja baatab xu ja rek mooy sama wàll magasin ñi nga gis yépp ci laa ko duy ba mu fees te jeexagut kon nag ku am nit penc mi ku am nit alaxira jël jàng xul wala waxadun di ko jox yoon bi yonent nee nag sallallahu alayhi wa képp ku am sa wajur wu jiitu alaxira ngay jàng fatiha ci boppam ak juróom benn qul wallahu ahadun danañ la bindal ne ci doom yi gën a baaxe seen wàjjur ci nga bokk di da nga daan dënge wàjjur qul wallahu ahadun mu nga nañ koy bëreel lu koy jàng qul wallahu ahadun danañ koy tuddee itam ak nuuru ndax lan yàlla mooy allahu nuuru samawati wal ardi ja nga jàngoon yàlla nee na moom mooy leer ak suuf mooy leer ak asamaan moo tax ñuy tuddee saaru nuuru ci turu yàlla yi la danañ koy tuddee lamaan ji firi kóllëre képp koy jàng rek daf lay jox kóllëre rek danañ ko tuddee almun firatun almun nag firatun ji firi dàq képp kuy jàng saar yi dafay dàq saytaane sa digganteeg yow mu di la sori juróom fukki junne kilomètre du la jege mukk te dafay dàq saytaane dafay dàq ñàkk loolu tax ñu ko tuddee almun nag firatun danañ ko tuddee ji nga xam ne mooy firi kóllëre képp kuy jàng saar yi daf lay yàq nañ la ko waxee ne képp koo xam ne booy tëdd dangay ngay tëdd ak njàpp bala ngaa tëdd nga jàng xul wallaahu ahadun bu pencam yàlla yàlla dana la wax ne weer googu nga daan tëddee di jàng xul wallaahu ahadun topp ko muy sawet ak càmmooy ba dugg aljanna yow kenn du lay saab danañ koy tuddee asaas ji firi fondement ndax mooy fondement gëm yàlla képp koy jàng rek fondement nañ gëm yàlla ci sa xol danañ koy tuddee muawisatu ji firi waaw musuraay ndax saar la xam ne dafay musal nit ci kéefër te daf koy musalit ci mbugalam bàmmeel loolu mooy ñaar fukki tur yi nga xam ne ñëw na ci xul wala aadun <coughs> kon nag saar woo xam ne nañ bëri duñ koy jàng lool yonentu wax na ci moom yu bëree bari